ñu gën a waat xel liggéey bi bu baax te xam ne dañoo sumbuloo xam ne mënuñ ca dellu ginnaaw dañuy faral di wax ne li fekk da ngaa toog jàpp sa bopp yaa moom sa bopp waaye soo xasee wax ba engagé wu moomatoo sa bopp kon nag ñu waat xel lool bu baax Safinatu Amaan gii nga xam ne dañ koo bokk te ñu am yéene liggéey liggéey bu rëy rëy ca tundu Bawol am ko yéene liggéey liggéey bu rëy ca biir làmbaay googu ndax duñ deñ mukk di wax ne suñu maam yi ak suñu baay yi fi nekkoon li waral ñun ñu jot ci tey jii lépp ñoom la waaye nag ñoom dañoo ànd a nekk benn di xàccandoo di dóorandoo ba tax li ñu am ñu am ko kon nag bu dee ba ñoom gisatuñu leen ñu war nañoo takk suñu laxasaay teg suñu tànk fan ko tegoon ñoom loolu nag dara jiituwu ci bokk ci daayira bii képp ku yëngu ci xasida ak képp ku bëgg sëriñ bi di taalube dëkk tund bawal rawatina tund làmbaay war ngaa bokk ci fenatu aman ndax mooy mbooloo mi nga xam ne dañoo fas yéenee ànd liggéeyal Serigne tubaa ca Bawal fas yéene ànd defar lépp loo xam ne nii maam ya defar nañ ko fa lu raafoon ñu yeesal ko te ku ne xam na ne bu ñu demee ca kër Serigne Touba gee ca làmbaay ay naa la nga fa yoo xam ne ñun ñu ñoo ko war a yeggale ndax mbooloo mi nga xam ne ñoo ko woon muy mëj moo nooree ni bi euh, di daaru daayira xasaayit bi nga xam ne suñuy bàyyi ñoo ko yore woon def fa kër Serigne Touba def fa jumaa boo duggee ci biir kër gi ay ay fondement nga yoo xam ne ngir jóg jumaa ji ku ci dugg xam ne laaj na yeesal ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon nag koo xam ne samp bi sëñ tubaa samp ci làmbaay ñor na la nekk na sa yitte ñi ngi lay woo ci liggéey bi ndax jàpp nañu na natu amaan doog mooy mbooloo mi nga xam ne nii ñoo war a wuutu ñoo mën a wuutu mag ñoo ñee defoon loola ci biir làmbaay duñ dañ mukk tamit di wax ne làmbaay am na wàcci waayu mag a mag ci yoonu murit ba tax lan moo tax gëj nanoo dégg xalifa général des mourides bu ñëw làmbaay yendu fa mbaa mu dem fa ñaari fan ci Cheikh Abdou kon loolu ci ñun la waaye du ci xalifa ba ndax ñoom ñi ngi bàyyi xel bu baax làmbaay mbooloo mi dong lañ jàpp ne mooy mbooloo mi nga xam ne ni mën naa yëkkati xalifa général des mourides ca Touba indi ko làmbaay nekk ak moom ñaari fan wala ñetti fan te suñ ko bëggee mën nañ koo am mu ngi des suñu pas-pas rek ak suñu jaayante kon ñu gën a góorgóorluwaat bu baax a baax te xam ne liggéey bu rëy rëy moo ñuy xaar donte suñu at bëriwut ay ndaw lañ waaye liggéey bu mag moo ñuy xaar loolu ñu bàyyi ci xel bu baax loolu nag li tax ñu koy wax mooy maanaam ñu am engagement ci liggéey bi bañ daayira jot rek nga ñëw daayira toog bu daayira tas nga dem toog croiser les bras déedéet liggéey bi chaque jour da nga cee war di bàyyi xel boo xasee ba jënd carte de membre bi lépp lu daara ji sumb dee ci bàyyi xel loo ca mën nga di ko ca def ndax mooy tax liñ bëgg a mën koo def kon ñi ngi sant gaa bu baax di wax ne liggéey bi loolu la carte de membre soo ko jëndee da bàyyi xel liggéey bi luñ luñ wax ne lii lañ war a def nga joxe ci sa xalaat bu dee alal lu ñuy joxe la nga joxe la nga am ñu ngi ci soññe bu baax a baax am na message yu ñu fiy jàllale nag yu mel ni le 12 bi passé bureau bu demoon na Bawol daje ji ak bureau bu Bawol muy sëriñ bu Lambaay ci jiitu sëriñ Ibrahima Jenn ak sëriñ Donga Ndiaye ñu waxtaanee fa li jëm ci wàllu ziar bi ndax ziar bi ban ko dalee wax ba léegi mu ngi bëgg a yàgg daanaka léegi mat at ñu waxtaan ci nag ba keroog jàpp nañ date fixe boo xam ne nii jàpp nañ ne mooy doon bisub ziar bi muy le 11 février ñu ngi soññu mbokk taalibe nag bu baax. dëgg la date bi sori na ndax dañoo waxan ginnaaw gàmb dinañ jàpp date bi waaye euh, dañoo wax ne comme bawal daanaka ñu bëree ba dañu yëngu ci wàllu tool yeeg yooyu moo tax ñu bëgg na bàyyi ban féex ñu jàpp le 11 février bi le 11 bi nag bëgg nañ ba dañ caa yegg kenn ku ne sab jaayante saw sas ndax bokkul ak jaayante sas bi ñu la sas ci daara ji muy wàllu ziar bi di 15000 francs bëgg nañ lépp mat loolu it waxtaan nañ ci dañ koo teg ci benn date boo xam bëgg nañ ba dañ caa yegg ñëpp matal mooy le 31 décembre bi ñu jëm bëgg nañ képp koo xam ne am nga carte de membre ci daara Safinatoul Aman cellule bu Dakar sa 15000 balaa 31 décembre na mat ba féete côté incha allah benn bi ci dolli ko it mooy Serigne Ibrahima Dieng mi nga xam ne mooy jëwriñ fii ci dakaar dafa amoon adjoint ñu koy wax Serigne Mbaye Mara Serigne Mbaye Mara moom nag liggéey daf ko xaw a tënk ba amul jot ngir ñëw ci liggéey bi mu joxe woon ngànt ci loolu ñaari bureau yi bi ñu dajee waxtaan nañ ngir sëñ Ibrahima mënta ñàkk topp ci moom ñu waxtaan euh, toftal ci sëñ Omar Ndiaye sëñ Omar Ndiaye mooy adjoint sëñ Ibrahima jenn fu mbooloo mi teew ku gisu sëñ Ibrahima boo bëggee gis jëwrin jàppale sëñ Omar Ndiaye mooy jëwrin kon sëñ Omar njaay mooy adjoint sëñ Ibrahima Dieng ñëpp xamee ko noonu loolu it mbooloo ma fa teewoon daanaka ëppoon na ñaar waaye xel yëpp maase nañ ci ne sëñ Omar moom mën naa mat matee na ko daal ñëpp ànd nañ ci loolu bu ko defee beneen bi ci dolli ko ay information la yuy jàllale yu mel ni bisub sëriñ Aliou Diouf Lambaye bii sëñ Basirou doon jàllale ci biir daana ji ñëpp gis nañ ko suñu ànd Juuf Lambaay nekk jàmbaar joo xam ne wax dëgg yàlla bisam fu ñu koy defee rek war nañ faate rawatina rawatina nag daara Safinatoul Aman bis boobu sëñ Ibrahima Diène nee na naa ko wax mbokk yëpp ñu bàyyi ci xel ñëwagut le 14 janvier la incha allah ca ñibbi Lambaay bëgg na nag ñu ànd ko ak sëñ Basiru mii ndax wax dëgg yàlla ku ne gis na ñi jàppe daara ji ak ni mu fonke daara ji kon bis bu toll noonu su amee te mu bokk ci biir daara ji rek bu ñu demee ci moom la ñuy wàcc kon ñu bàyyi ci bu baax ba dañ caa yegg nañ ci def ay waxtaan ak fu ñuy départ lépp daal insha allah le 11 janvier lay doon beneen bi ci dolli ko it mooy sëñ Bada Diouf bu tuguj dafa am tudd le 17 sàkku woon nañu yëgal ko waa daara ci ñëpp le 17 lay tudd ca tuguj ak sëriñ Matandir moom it day wàcce soxna le 10 ak le 11 ne woon ne ñu waxal ko ko waa daara Safinatoul Aman kon xam naa ne loolu la ñu doon jàllale ci kàddu rek. sëriñ bi doon sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey